tëj ko bu ko tijjeeti donte sax daa tiim ab xooluwaay boo xam ne daf laa yéem dafa rafet ci yow par exemple rek ñi nga xam ne dañuy dëkk foo xam ne seen balcon day tiim géej gi wala mu tiim ay jardin wala mu tiim ay tool foo xam ne daal ay ménagerie tabiiya moo fa bari seeni fenêtre tiim ko seen balcon tiim ko mu ne waaye ak li nga fay xool lum rafet rafet bu dee bu paree jural la loraange tëj ko loolu nag mën nañ ko tuddee aw léebu ndax jëmmi tëji fenêtre nii rekk taxul ñuy wax waaye ci sa dund loo xam ne dëgg la biñ koy def dana la bégloo wala koy wax dana la bégloo biñ koy xalaat dana la bégloo dana la may bànneex waaye amaana soo paree mu lor la mu ne loola nanga ko tëj bu ca yittewoo loolu fu fu yaatu la mën a dem am na ay mbir yoo xam boo koy xool dangay bég sa bakkan da ciy kontaan waaye xam nga ne bu jàllee dina la jural loraange am mbir yoo xam ne it boo koy def da nga ci yëg plaisir rek li ñuy wax plaisir nga xam ne moom euh, bànneexu bakkan kese la fa waaye bu jàllee xam nga ne dina la jural jafe-jafe na ko benn boroom xam-xam doon waxe rek ne benn minitu bànneex jarul mukk benn bisu mbugal waxuma la ak loo xam day ëpp benn bis kon loolu la ñu xikma bi doon jàngal ñu ngi sant ñëpp tey wax na rek bu nu fàtte mukk di julli ci sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika wa rasulika wa xabibika muhammadin wa ala wa sahbihi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamu aleykum wa rahmatullah